Mawlana Baye Ndao jërëjëf Baye Ndao kese Cheikh Abdou Barhama lay ziyaara sëriñ ci sa xaal ak sa maqaama di kontaan bu baax lool ñëw bi nga xam ne nga fi ñëw fii ci kër Mbaye Fall dëgg-dëgg mooy ñëw bi nga xam ne sëriñ bi Cheikh Abdou moom la fi ñëw bi fi mujjee ñëw xaal bu mel nii sax amu fi woon kon sëriñ bi ñu ngi kontaan te am nañ yaqiin ne ziyaadatu ndollal am nañ ko am nañ ko ci zahir te am nañ ko it incha allahu ci baatin kon suñuy wayjur nga xam ne ñooy rakki baay ndaw ñëpp teew nañ fi suñuy maam mu ngi ci biir lépp koo xam ne suñ mbokk la te saalum rek jógee nañ fa daal di teew ngir bis bii mbokki taalibe yi ñoom it teew nañ mbokki dëkkandoor yi teew nañ ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ubbi nga sa kër doon teertu di la xaar ngir nga daal di yegg si nii ci jàmm kon yéen waa Kër Mbay Fall kenn réeréwu Cheikh Abdou kon Cheikh Baye Ewel mi nga xam ne tey moom moo fi toog toogaay Cheikh Abdou te amuñ ci benn sikk amuñ ci benn sàkk kon moom moo teew fii tey tey incha allahu ndollal loolu wax naa ne am nañ ko te gëm nañ ni am nañ ko kon sëriñ bi ñu ngi lay dalal ñu ngi lay yaatal ñu ngi lay tatagal ñu ngi kontaan lu baax ci ñëw bi nga xam ne moom nga fi ñëw ci fii nga xam ne moom nga dëgg sa tànk kon daal tënk nañ ji wax mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew tënk nañ wax ñi nga xam ne it ñooy mbokki taalib yi nga xam ne ñoo fi teew ñun xam nañ la dégg nañ sa tur balaa tey ngay teew fii nga xam ne mooy Kër Mbaye Fall kon daal sëriñ bi kàddu yi moom lañ bëggoon a jotal ñu ngi leen di sant ñu ngi gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah di jox sëriñ bi mu defal ñu ñaan suba mu daal di dugg ci biir daal di noppalu bàyyi bay si alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbooloo mi kër Mbaye Fall yëpp di leen ziara leen dokkeel ngi nuyu imam bi ngi nuyu borom dëkk bi di nuyu kilifa yi bi fekk Seydou imam Ndaw ñu ngi lay nuyu di la ngi nuyu suñu baay jiitoo toog doon wala rek sëriñ bi di nuyu Modou Gissar Mathiam di nuyu Tafsir Mbaye Cissé nuyu mboolem ku ñu fekk. di am mbégte bu baax am contentement ci teeru bi ngeen ñu teeru wax ne dara war ko lu kóllëre gi nga xam ne Cheikh Abdou Barhama seqoon na ko ak sa baay muy Seydil Imam Ndaw nga xam ne moo fi taal taal bii moom it ngi koy ziara ci xaalam ak ci maqaamam ak ci jëmmam di ko ziara ci njaboot gi di wax ne jotaay bi jotaay kóllëre la kóllëre gi ngeen seqoon ak sëriñ bi te rafetal ko moom it mu rafetal ko yàlla ak àggale ko fii loolu ngeen ñëw xeetu ko ngi seere ne àndoo bi àndoo te yàlla tax la woon fii lay des képp ko àndoo ngir am yaakaar ne day gën a kayo rek day gën a màgg day gën a yaatu incha allah ñu ngi nuyu mbooloom yëpp saafante ak ñëpp di wax ne. ñëw nañ ci jàmm si nañ ci jàmm ñu ngi am yaakaar ne danañ dal ci jàmm te danañ fi ne ci jàmm li ñuy fi tax a ñëw yàlla danañu may bañ mottali ko xool yëpp beeg jàmm yàlla yëpp ci jàmm waajal ko déwén incha ñu ngi ñaan yàlla yàlla xew na lépp yal na yàlla xew na lépp lépp li suñuy sant ci bés bi yal yàlla may ba nañ koo def suñu mbëggeel suñu cofeel ci bés bi yal nañ ko mottali ci jàmm yal nañ fi dajee déwén na yokkute ci zaahir ci baatin ci jëmm yeeg ci poos yeeg ci njaboot bi yal na yàlla ci allahumma salli alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina wa sallam jërë